petit après dama naan est-ce que mbaax jarati na ko billaahi wallaahi boo demee France ba tase ak moom cest à ñi mu teral ci réew mi ñi mu dimbali ci réew mi ñi mu sagal ci réew mi ñi mu yëkkati ci réew mi yàlla na ko yàlla defal jàmm danga may may foofu danga may may foofu ma danga may may foofu merci foofu laa doon ñëw. solennellement fii ci émission saa yu làmb ji amee mu fexe ba mu dellu si ci dëkk man sama xel day dem ci Petit Mbaye wallaahi ëpp na dix ans. Mhm. même su defoon dara ci deful dara sax. Mhm. ñun ñëpp dañuy business. ñun mhm. ñëpp lu ne mën na noo dal. mën lu baax. mën lu baax. mën na dimbali doomu aadama def lu baax ci ah. def lu baax dañuy ñaan le président Macky Sall. ci quartier général bi ci weeru koor bi. mi ngi gracier ay nit. mi ngi defal ay nit lu ne. Petit Mbaye. kenn grâce wu mais affaire bi bari ëpp na. te mhm. loolu jaru ko. mu mhm. bàyyi njabootam bàyyi yaayam bàyyi mhm. ñëpp. ay jabaram. président Macky Sall mën na ko na ñëw na Petit Mbaye ñëw daal. parce que Sénégal da ko soxla Sénégal da ko soxla. Sénégal ko soxla et puis bon dafa defal Sénégal lu ne. macha allah dafa defal Sénégal lu ne. Petit foofu laa doon ñëw man ñu xalaat. Pape foofu laa doon ñëw. damay emboîter le pas suma papa. parce que bu neexoon tey président Macky Sall. avion bi nekk France du fa bàyyi Petit Mbaye Alioune. lu baax lu ne def na ko ci réew ñu koy ñaan solennellement le gardien de la constitution. Mhm. mu def dara pour Alioune Petit Mbaye mu ñibbi Sénégal parce que sa place n'est pas là-bas. Malick c'est un Sénégalais bon teint. ba oui te yàgg na foofu. ak lu munti xew. le président de la République de tous les Sénégalais ñu ngi lay ñaan. Mhm. solennellement nga jàpp ci Alioune Petit Mbaye. revenir ñu parce que sa place fii la. Mhm. c'est un Sénégalais bon teint. te ba léegi Malick est-ce que xam nga boo ko fekkee France daf lay teral. bien sûr teral nga rek te it moom rek a mas a indi président Macky Sall ci làmb ji de. mu nekk premier ministre. ah mais waaw fàtte xaju fi ah. action 2000 li ñu liggéey ci réew mi. Mhm. dafa rëy. ay Boubacar Boubacar son frère ak son frère mhm. bu ñu daan def publicité dañ doon wax naan action 2000 actionnetti na. wallaahi. Euh, mu tëgg ay événementiel yu mag. Mhm. amaana sax xëy na li ko yóbbee li ko dal nii. ci liggéeyal réewam. Mhm. utal jeunesse su réewam. liggéey liggéey. Mhm. xëy na ci la ko li ko dal dal. Mhm. mais aujourd'hui je pense que il a assez payé. et il est temps qu'il revienne parmi sa famille. on a besoin de lui. a le pays a besoin de lui. Mmh. c'est un homme compétent. Mm. c'est un homme généreux. Mm. qui a toujours œuvré pour le devenir de son pays. et je pense qu'aujourd'hui le temps a fait son temps. et Petit doit revenir au Sénégal. Mm-hmm. et comme ni ko Gaston waxee rek dañuy lancer appel au président de la République. Mm-hmm. ñu jàppale ñu. Mm-hmm. suñu xarit. suñu frère dellu si. bu ñuy wax Aline Petit Mbaye suñu xel dafay dem toujours ci Doudou Yakati. musu ko fàtte qui jusqu'à son dernier suuf da koo woy est resté fidèle à Aline Petit te loolu mooy fidélité. loolu mooy kóllëre. dans les moments difficiles mhm. dañuy nekk ci làmb àdduna yépp di déglu mhm. nga dégg ko mu yëkkati mhm. Alioune Petit Mbaye Petit Mbaye laay woye macha allah yàlla na dellu siwaat parmi nous allahumma et on profite de ce mois béni de Ramadan pour demander solennellement au président de la République que ce digne fils du pays retourne au pays pour servir le pays je pense que loolu appel la bu nga xam ne euh, war na ko mën a dégg euh,